activité bi activité bi nga xamante ne ñu ngi koy def depuis plus de cinq ans tey du ndombol tànk moo tax ñuy def lu ñuy def dañoo delloo buum ci mboy mboy ga te chaque année ñu yokk luñ doon def pour que ñu mën a gën a dimbali ndaw ñi te ñun gën nañ ni lu ñu dimbalee ndaw ñii parents yi la dimbali bu ñu dimbalee parents yi Sénégal la dimbali. waaye na nit ñi fàttaliku biir Kolda Macky Sall moo ma fi teg loolu dama bëgg mu leer parce que ñëpp ngi remercier Amadou Ba di fàtte ci signé décret bi ne ko contresigné donc ma bëgg kaa leeral rek te xam naa ni waa Kolda wane nañu jour bi ma fiy dugg. mbégte bi ñu am ci Macky lu mu def parce que xam nañ ni ku amal njëriñ Kolda lañ jox ndombo tànk te lii ñuy def nii ñu bëri woote nañu mbiru parenage bi dama bëgg nit ñi xam ne ñun Kolda pare na ne pare na te nee na Amadou Ba totalement loolu kenn werante ko tey damay sant di gërëm boo leen gisee toogaay bi ngeen gis ne c'est des mères de famille c'est des pères de famille ñoo fi gën a jóg ñëw dama bëgg a bàyyi ci xel man Abdourahmane Baldé lu tax activité bii ma fonk ko dama nekkoon élève bëgg a jàng nekk ci famille bi nga xamante ni parfois bu ñu la bindee école pour ñu jëndal la fourniture problème la nga am benn cahier des pages bi ngay doxalee ñetti weer ba ñeenti weer parfois nga soxla bic bi ngay bindee nga laajte ki a un bic ñu naan la le boutiquier nga am obligation génn di ruus am li la métti yow élève bi ñi ci bëri gis naa ñu bàyyi école parce que amuñu fourniture yu mat gis naa ci samay morom ma dund ko gis ko am ay professeur ñi nga xamante ni demaguñu fenn ñu ñu biir Kolda bii ñenn ñi binduñu ñenn ñi di ñu jëndal ay fourniture scolaire mba xam fourniture scolaire lu muy def ci dignité élève ñun ñu ne dañ koy def un combat bi ñu yàlla sutur as tuut loolu la ñuy séddoo ak waa Kolda yëpp te tant maa ngi dund te mën ko wallahi azim activité bii duma ko bàyyi. professeur Moussa Balde. am programme bu am solo bu mu bëggal ndawi Kolda ñu waxtaan ci bu juboo ma ne ko la fondation la LONASE bi nga xamante ne maay président conseil d'administration bi jël na engagement gunge élèves yi ci wetam te damay remercier le professeur Moussa Balde amaana nekku fi waaye xam na cër bi ma ko jox mag la ak ñëpp ñi nga xamante ni ay mag lañu ci biir Kolda xam nañu ci bi ma leen jox man dama dënku ci ñoom dama jël sama bopp dënku ci waa Kolda yëpp li ci ëpp ñu nekk ci accompagnement formation famille li ci topp ñu nekk ci financement famille ak ci santé bi ak yeneen ak yeneen te yàlla may nañu ay njumtukaay ñi leen mën a gën a dimbalee dama bëgg ngeen gën a góorgóorlu ñii farlu nekk ci parrainage bi candidat bu baax bi mooy 117 bi 117 boobu fas buy raw la maa leen ko wax parce que xam naa ko depuis plus de 16 ans dama bëgg Kolda à travers ma personne à travers la personne de tous les responsables de Kolda ñu xam ne Macky Sall ki mu joxoñ as la liggéey la xam te du dagg santé dama bëgg ñi nga xamante ni dañoo def abandon de post biir Kolda ñu dellu ñëw liggéey Kolda lëndëm na. Kolda bëri na ay jafe-jafe Kolda soxla na seen maire bi ñëw liggéey loolu lañ soxla waxu caaxaan ñu bàyyi ko koo attanul yéen nii dañ kaa joxe te tey man gëm naa ni waa Kolda am nañu responsabilité pour jël seen responsabilité xam na kan moo mën ak ku munut man de tant que maa ngi dund dinañu def defaat defati.